ca Denver ca réewum Amérique njiitu kuréel gii di Otra Africa ah, di yëngu ci wàllu migration ah, sakku ci njiitu réew mi mu dem fa mbir yee xewee rax si dool yi ah, yoon tegi daan ñi nga xam te ne ñoo def jëf jooju ndaw yu diwaanu Matam wàccoon ci mbedd bi amal doxub ñaxtu démb ñuy naqaru li société yëngu ci wàllu miin ca diwaan ga teg loxo seen suuf ba pare defaluñ leen dara daañu ci teg eh, coronavirus di xibaar ñeel mbas mi di coronavirus chronique culture bi jeexal ak ci a fës

yu baax moo nekk ci machine bi mbokk yi leen di nuyu dellu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi dañ koy door kàddu yi njiitu réew mi jëm nag ci wax askan wi ñu moytu lépp loo xam ne dina lawal feebar bi di coronavirus ci réew mi euh, lu ko may rek kon nguur gi dina mujj nag jël matuwaay yoo xam ne yi teg lay doon ngir na xeex jàngoro ji euh, président Macky Sall doon jiite démb conseil présidentiel bu ñu jagleel xeex jàngoro ji di coronavirus ñu dugg lay kàddoom président Macky Sall la ñuy déglu kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëm nag euh, ci conseil présidentiel bi nga xamante ne euh, doon na ko jiite démb jëm ci xeex euh, coronavirus muy ñaax ñëpp ñu gën a feggu moytu lépp luy lawal jàngoro ji lu ko mooy rek daañu gën a tengal xeex bi moom président Macky Sall kon ñu ko déglu déglu kon ci kanam mu fekk nag ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moom nag tey jii ñuy xaar mu jënoog taskatu xibaar yi ñàkkul na nag den del si dogal yi nga xamante ne nguur gi jël na ko. ko jëm ci xeex euh, mbas mi di coronavirus nga xam te ne mu ngi gën a law fii ci Sénégal wi heures tegal ñaar minutes. ak RFM kump jeex na. wéy ci xibaar yi wax uh, ci jëye ju xew ca uh, Kolda rawatina ca dëkk bi di Sinthiang Koundara uh, foofu nag ki nga xam te ne moo jiite groupement féminin groupement jigéen ya nekk foofu ca diwaan ga moom la ñu daal di faat ay sàcc nak noonu def lu ñu mel ne yaakaar dafa yor xaalis ñu daal di koy songu leerale ak Abdoulaye Diallo. ay sambaabo yi yoroon ay ngandaay ñoo dal ci askan bi yeewoo ca Sinthiang Koundara chef lieu de commune te mu bokk biir département bu Vélingara yooyu fa faat ab jigéen comme ni koy nettalee témoin bi ah environ deux heures trente la sama buntu place yëngu léegi bi mu yëngee ma mel ni kuy nelaw si suuf la ma jëlee ba si yàgg bruit bi xaw am doole ma jóg ma fekk benn waaye mu ngi bëgg a dajji sama boutique di dugg léegi ni ma génnee noonu mu dóor ma torche ma yee sama collègue bi ma ne ko saa waaye ay bandi attaqué nañu mais heure boobu ñemewuñu génn ndax ndaxte xamuñu ndax groupe la quoi ñu génn ñu woo gendarmerie gendarmerie ñëw def ay constat am si saa si ñu delluwaat mais si ndekete ñu génn ñu dëkk bi ñu demaat dugaat beneen kër attaqué benn femme dóor ko ci bopp gaañ ko bu baax balaa mu yegg Vélingara la décédé tey si suba si fajar si six heures du matin aji dem si yàlla ji mu ngi tudd Daado Ndiaye te mu jiite woon ab mbootaayu jigéen. mu ngi tudd Daado Ndiaye ay cinquante cinq yooyu noonu mag la quoi mbootaay la yor parce que dañ ko yaakaare xaalis quoi moo yor fii xaalisu mbootaay jigéen ñi quoi waaw xaalis daal lañ doon wër moom moo jot a dellu àdduna léegi ñu ngi koy jàll ni ngay yóbbu Malem ñaani foofu lañ koy denc ay mbokkam Sinthiang Koundara nekk ca kaw tali bi ñu duppee route nationale numéro 6 ca kaw boobu tali mu am ñaari ndaw yi fa ñàkk seeni bakken ginnaaw bu moto yi ñu doon dawal daal di mbëkkante ak benn woto particulier l'accident bi mu ngi xewee bi ca Demba Korbali dëkk kaw bu commune Bagadaji ca Tundu Mawon fàttali ne ci altine bi weesu ñaari dawalkat moto ñoo ñàkkoon seeni bakken ginnaaw ñoom it bu seeni moto yi daal di mbëkkante ca Saare Tamsir biir goxu Saare bi ji Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo jamono jooju nag dënn bi faati bakken ca diwaanu daaw si rawatina ci dëkk bi di eh, Ndiobène eh, foofu nag benn xale bu góor bu toll ci fukki at ak la dënn bi faat keneen ku mu àndaloon di eh, rakam moom jële ci gaañu gaañu askanu Ndiobène di sàkk ñu defal leen ay paratonnerre ngir mën a mucc ci dënn yi. wax ci mbirum doomu Sénégal yi juróom ñi nga xam ne faatu barki dem ci lakk amerique Amérique dëkk bi di Denver eh, ci xibaar sax ñu ne nit moo def lakk googu ak lu mën a xew njiitu kuréel gii di ONG Otra Africa di yëngu ci wàllu migration yëkkati na kàddoom di naqaru li nga xam te ne xew na njiitu réew mi ci boppam la bëgg mu dugal ci loxoom lépp lu ci war mu def ko dem ba foofu ñaawlu loolu waaye tamit eh, fexe ba ñu def jëf jooju ñu daal di leen teggi daan ñu déglu njiitu ONG Otra Africa Souleymane Aliou Diallo ci eh, jokkoom ak moom Raman ñun dañu naqarlu ji jooy euh, boom bi ñu boom euh, njabootu jool bi nekk États-Unis wax dëgg yàlla ñu ngi koy naqarlu suñu biir xol loolu moo waral ni ko ñuy ñaan Macky Sall ginnaaw moom mooy njiitu réew mi moom mooy bàyyu réew mi moom la ñu jiital ci réew mi na dem jëli néewu ñooñu lakk même bu nekkee seen ay yax la ñuy indil na ko indil mu wane ni que état wu Sénégal état bu fort la état wu Sénégal mu ngi taxawu ay doomam yi nekk bitim réew bu nekkee moom njiitu réew bi moo dem taxaw ci kanamu américains yi laajte néewu ñooñu ñu delloo ko état bi taxaw taxawaayu état moom ci njiit bi sénégalais yépp à l'unisson ñu nekk benn ñu suul sunu ay doom yooyu loolu dina gën a tax Sénégal am symbole am woy bu rafet par rapport ak li situation bi am ñu koy méttit lu loolu loolu loolu loolu moo tax ñuy ñaan Macky Sall na dem jëli néew yooyu indi ko ñu suul leen fii sunu biir réew mu nekkoon euh, kàddu yi Souleymane Aliou Diallo Souleymane Aliou Diallo di njiitu Otra Africa di benn ONG bu yëngu ci wàllum euh, migration Cheikh Ahmed Tidiane euh, Ibrahima Niass newoon xalif bu Medina Baye daal di neen koy delloo ba jëbal boromam nag dem ci ngoon moom mi nekkoon xalif bu Medina Baye nag xol yi tooy na lool jamono ji nga xam ne moom lañ koy denc mbooloo bu takkoo takku fa nañu jóge fi ci réew mi ak ci bitim réew woon fa Ibrahima Diame. ak ci teewaayu mbooloo mu bëri xol yi tooy lañu amalee robo kii di Cheikh Ahmed Tidiane papay Cheikh comme ni koy wooyee nag tëdd bés ni ki tey ci wetu waajuram bu góor di Maulana Cheikh Ibrahima Niass ci xabru baayam kon dañ ko jébal boromam mbooloo mi ko teewee jóge fu ne ci biir senegal waaye tamit ci biir àdduna bi ngir kon gunge di sëriñ ci këram gu mujj ñëw fekk kon robam ay délégation yu bàyyi ko réew mu Mauritanie Cheri nga xam ni moom moo di roi bu Kano ci réew mi Nigéria di Mohamed na fekk si robam bi ginnaaw nag biñ ko jébalee boromam bi noppi moom xalif bi di dëddoo àdduna jabootu Maulana Cheikh al Islam ay doomam ak ay setam daal dinañu dajaloo ngir introniser maanaam solal mbubu xalif kii di xalif bu bees bi di Mohamed Maye Niass ngir ñëpp rañee ko solal ko mbubu xalif général cérémonie bi nag maanaam xew-xew bi ñoo ko doon amale ci buntu kër Maulana Cheikh Ibrahima Niass di Baye ci kanamu juma juma bu Medina Baye Ibrahima Diame Medina Baye rajo Futurs Médias. pour RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu dellu si ci élément bi ñu leen doon wax sànq ci ndorteel xibaar yi jëm ci président Macky Sall euh, nga xam te ne euh, dellu na di ñaax askan wi ci ñu feggu ci jàngoro di coronavirus waaye tamit ñu daal di moytu bu baax lu ko may nag nguur gi mën na delluwaat daal di tegal xeex bi dem ba conseil présidentiel la doon jiite ca palais ñu déglu kàddu président Macky Sall. semaine bi cas grave yi li ñuy wax cas grave dafa yokk ba tax na bu ñu moytuwul fagaru. loolu si day gën a yokk te fu cas grave amee rek xam nañu xam ne faatu bi dina yokk loolu moom docteur yeeg wax nañ ko fi pour ñu mën a wàññi nit ñuy génn àdduna ci ndax mbas mi faaw ñu fexe ba contamination bañ am donc faaw ñu fexe ba wàllante bi bañ am te liy dindi wàllante bi mooy mooy dëndeeku dajaloo bi ak di bañ a sol masque kon lu leer la fii rek mu ngi def ay ndaje yoo xam ne bu ñu fa génnee jàngoro ji dina law kon nit ñi bu ñu génnee àdduna bu mu ñu te gannaaw suñu borom li mu wax dund ku nekk nga dellu si sa borom waaye nag suñu borom moo ñu wax ñu fagaru dañuy moytu kon moytu boobu mooy wax ji gis nañ ne itam ñu bari ba tey ñu ngi jàpp ne jàngoro ji amul malgré li ma rey si doomu aadama ci àdduna bi ci Afrique ak ci Sénégal ba tey am na ñu nga xam ne aussi même bu leen jàngoro ji laalee dañ naan mënul nekk Covid ndax ñoom mënuñu ko am te feebar bi nee kenn di yaakaar ne jomb na la képp kuy noyyi ku ne mën nga ko jël loo xam ne danga nga koy noyyi doo ko mënoo ko gis mënoo ko dégg buy ñëw mënoo ko xeeñtu kon kooku kenn mënu si mucc lu dul nga fagaru suñu borom jàppale kon nag fagaru lañu war a def te ñu moytu maanaam wax joo xam ne wax ju ñaaw lay doon si ñi nga xam ne yàlla dogal na kon euh, président Macky Sall euh, kon kàddu yooyu démb ci conseil présidentiel bu doon amal euh, ca Palais la daal di yëkkati moom tamit xam ne daal bu fekkee ne mbir yi dafa nar a gën a law dàqul nag état d'urgence ñu daal di koy delloo si fii ci diwaanu Ndakaar ngir xeex wàllante bi wax ci mbirum xale bu jigéen bi nga xam te ne dañ ko daan di woon bundu xatal ca Sacré Cœur bu pare filmé ko gannaaw ñaari yoon ñu ko dàqee atte bi dina mujj am nag tey jii. ñett ñu ngi ciy tuumaal ñu nga kaso boobaak léegi yëpp na ñaareel bés liñ leen di toppee nag di xotti war ma nit naka noonu tam euh, daal di siwal euh, ay xibaar yu ñeel euh, nit ki ñu fàttali ne soxna boobu nag dañ ko jiñu naan dafa doon sàcc te moom nag dafa àndut woon nag xelam ñii di ndaw yi dëkk ci zone yi nga xam ne dafa am min ca diwaanu Matam ñoom nag doxam ñaxtu leen doon amal li ñuy ñaawlu mooy seen suuf gi gis ne société yëngu ci wàllu min foofu dañ ko teg loxo nee loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu lëkk euh, tax nag ñuy sàkk euh, ci ngër gi mu daal di xoolaat mbir mi ñoom tamit gis nañ ne société yooyu li ñu warloog ñoom defuñu ci dara Ali Bandel Niang ay ndaw la yu bare yi nga xam ni wàcc nañu ci mbedd Amady Ounaré ngir ñaxtu la leen ci yóbbe nag nee nañu société yi exploité phosphate ya yi sàmmante ak seen ay engagement di xaar gi ñu yàgg xaar ba tax ñu ne doy na seen suuf bi ñu aakimoo waaye itam ñàkkum xëy mi ba waral kon ñu daal di organiser ab manifestation bi ñu doon amal nag donte préfet autorisé na ko waaye doxu ñaxtukat ya kat ñoom jaaruñu ci itinéraire bi ñu siifoon ci kayit ba noonee kon lay affrontement tàkk seen digganteeg takk der yi takk der yi bëriwuñu waaye ka leen jiite woon moom jaar na ci pexe bu ne ngir kon ñu dispersé wu ndaxte nag force nañu barrage bi ba ñëw taxaw buntu min bu Somiva Ousmane Ba kenn la ci organisateurs yi. ces problème au niveau de l'école. mouvement de jeunes yi. nañu les organisations paysannes. ñun ba Matam la ñu jógee. pour ñëw appuyer cette marche. parce que ba léegi. léegi gisaguñu benn retombée. société yi ñu ngi fii. pour benn njeexital. moo tax dañoo bëgg état bi. administration war na ko reversé waat ci commune yi nga fonds boobu reversé ko parce que société yi ñu ngi fay ay impôt ak ay taxes xaalis boobu dafa war a delluwaat ci communes yi tamit société yi nañu jël xale yu dëkk si commune yooyu ay paysans yi nga xam ni dañoo ñàkk seen tool te loolu dañu leen war a indemniser au ñuy jël ay enveloppe di ko jox individuellement ay nit di joxe ay billets mag ou bien di joxe ay xaru tabaski dañoo bëgg nañu def ay projet yu mag. di ab journée bu tàng lool ci biir Amady Unare ba tax sax ñuy xaar lan mooy dara nekk suite manifeste.